wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu rawatina suñu mbokki daara yi leen siyaare bu baax a baax te bëgg andi li muy xéewal goo xam ne Seexul Xaddim moo ko def te itam bam koy def jamono ju mel nii rek moo ko waraloon ndax fan yëpp yéen a ngi dégg rajo yi yi ñuy wax feebar bi nga xam ne dafa nekk ci siin te nekk feebar boo xam ne day faagaagal ay nit kon loolu ñu war ko tudde mbas muy feebar boo xam ne ku mu dal rek ñaar daañ ñëw ci yow njor lool ah, xam nga Sénégal mu ngi def taxawaay mat sëkk ngir eh, bañ jàngoro jooju dugg ci biir Sénégal su ko defee nag eh, la ca gën a gaaw te gën a wóor ca moytu ko mooy lu mel nga xam ne Seexul Xaddim ko def ne képp ku ko jàng insha allahu taala bépp balaa bépp musiba mbas moo xam ne dafa xew ci amu réew suñu borom dana la ci musal loola mooy ñaari bayit yi mu ji ci suuf mu ne man xaalaha ku ko wax moom bayit yi fii zamanin wa bàyyi ci jamonoy mbas mbas mooy xeer boo xam ne dafa daj fépp di rey mu ne ko wax ci jamono jooju amanahu llahu suñu borom dana ko wóoluloo dana ko musal minal balaa i ca balaa booba li ngay wax nag mooy lii bismillahi rahmaani rahim allahu xayyun samadun wa baaqi سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى سنيع مستمسكين بالقياس أحمد خير الأنام المنتهى ومبتدا لول موي نيتي واي يوي سيو الخالي مباخ من خالها كوكا واخ في زمان الوباء جامني مبس جامني كوليرا جامني فيبر بابا ني واخ سين amanahu allah suñu borom dana nak musal minal bala ca bala boba kon nak na ñepp ma sa xamne lolu moy li gëna gaaw ci mucc ci rew nga xamne dañ koy ragal ba kenn ku ci nekk am ci tiit ak njàqare way yalla sa borom defo na ci tawfeex ba mu yaatu lol ndax ko ko wax sëñ tuba lu wax deug la kon nak ku bëgg mu ci ci lol na nga fexé ba jang ko jang ko sax njabot ndax mom yoma na mako lu ñet bayit rek la ci siar ñepp di ñaan suñu borom musul na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh